Principi, la paix Sanggup Bismillahi, ma jog man sant lillahi. Sangub jigen ñi ci dun ya jaratul Bismillahi ma jog man sant lillahi. Sangub jigen ñi ci dunya jaaratullahi. Ngir ñepp ñepp ko gadul cant war diko way. booleeg siyaare kaña nal jaaratullahi budul ko nag sunu maam maryaama jaaratuna ko ñëpp jaari jahim tey jaaratullahi budul ko nag rawdatu maam jaare fi poroxaan kon ya daaxare dun dem jannatullahi nee leen ko alhamdulillahi alkarim ndegam tuuba li man baala xaayin am jaaratullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarim ndegam tuuba li man baala xaayin am jaaratullaahi xaddis ba nee ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullaahi xaddis ba nee ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullaahi ñeneentu téeméeri at ak junni mooy lañu wax loola di fanweeri at ngir bamba lillaahi nee leen salaamun aleykum bu so jaaratuna yaa doon mariama yow maam jaaratullaahi yaa doon Mariama yow maam jaaratullahi Iisa ibnu Mariama ruuxullahi kun la moon Jibriilu ñëw fa yakoonu jaaratullahi Cheikh Bamba ne xaadama lam yakun nekk la mu am wala yakunu li mumkinin min allahi maa lay nuyoo ka ziyaara ka yërëm du fi yow xol yaa ngi ruu yaa ngi sun cër yaa ngi lillahi yaa jar siyaare diraam tey sukku tey joxe hëddiya lillahi ngir maam jaaratullahi nangul nu sun yéene ak sun jëfi nangu gu wér te boole noog bamba fil jannaati bun yaqu bun yoqi bu nu yàqit la Bamba defoon saadix bu sax ci ndigal ngir jaaratullahi umu xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu semmal jaaratullahi umul xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu semmal jaaratullahi dem leen siyaare ji sunu mam jaara xudwatina royteef la fii Poroxaan tey jaaratullahi dem leen ziyaare ji sunu maam jaara xudwatina royteef la fii Poroxaan tey jaaratullahi ngir moonu wan ku nu doyloo doy rasoolu ta doy rabbul waraa Seexu Bamba jaaratullahi doy loolu doy doy na Seex Bamba doy abadan تمودنا خير خلق الله بالله دويلال دوي دوينا شيخ بامبا وانو دوي أبدا تمودنا خير خلق الله بالله جا جف تجا جف نيا جف جف جو تخبانو أم وكنا مولمود يخون بالخلق بالله في الجديد لا